waaw mbokki Equivox TV maa ngi leen di nuy di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàqu si yéen téléspectateurs yi di leen wax ne amuñu seen fay jaaraama rek jërëjëf jëf yal na leen yàlla fay tey nag di talaata maanaam mardi 8 juin 2021 li ñuy def mooy dañ leen di bàyyi ngeen dem déglu review journaux yi li ñëw tey ci yëglekaay yi après yu jógu ñëw sa si waxtaan bi ak yéen asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 8 juin 2021 dañuy yokkin ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb tey xëtam mu njëkk fa mu ca xëy fësal wala la ca xëy fës lenn la maanaam Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier bi nga xam ne la 31 juillet la combat ba nara am yëglikaay ba nag mu nu xëy di nu xamal daal ne na soo bëggee dëgg moom boo bëggee dëgg dëgg vrai chance moom moo di combat bi wala boog vrai règlement de compte yëglikaay bi moo xëy tey gisoo ko noona Balla Gaye 2 mu mel ni ki daal mu nga xëy di wax ak Bombardier di ko xamal ne ko daal moom bu sàgganee day ci wàllum bagaar corrigé moom danaa ko ca def te itam moom Bombardier mu ngi trompé wu di wax naan ay affaire da ay mystique ak yu mel ni ki noonu waaye Balla Gaye dee daal ne na ko ban yegg ak jàmm rek buñ ca yeggee nga xam ne lépp dëgg la ñeneen ñoo xam ne ni moom seen combat tamit léegi mu yegg si muy tafaatin ak Boy Niang bërki dem seen fas à face ba ñu waroon a am fa nga xam ne moo doon ca cosaan mu mel ni ki nag face à face ba donte mu na am waaye la ca am moom la ñëpp ñaawlu muy violence ba mel ni ki nag yëglikaay ba xëy na tey ñëw ci ak tafaatin ba nga xam ne ba mbir ya amee moom bi ak ay oto yoo xam ne toj nañ leen fa sàcc ay scooter ak tamit agressé fa ay doomu aadama yoo xam ne son yéen kul ca mbir ma waaye terewul booy nag ma fa toogoon moom wax nag tafaatin nee na ko sama diggante ak yow jàppal ne moom loo ci mën a dégg moom muy neex wala muy naqari xeex mënta ñàkk suñu diggante faw nu laale maag yow ci côté xeex ba mu saf sap dóor a bëri ñoo xam ne ni moom seen laale jàpp nañ ko ba pare muy forsa ak Pakala yëglikaay bi nan seen première face à face daal maanaam dèjà ba mu amee tension bu méttee méttee am na fa yëglikaay ba mu xëy tey ñëw moom sunu lamb dina ko wax kenn koo xam ne ni moom combat bi tam jàpp nañ ko ba pare muy tey sa numéro 2 digganteem ak Franc ka ca xëy di wax moo di Malick Thiandoum bu TFM Malick moom la mu xëy xamle nee na boo bëggee dégg dëgg daal dangereux challenge la tey seen deux jël maanaam daal li mu jël ah challenge la de waaye bu dangereux dangereux ndax ku ne xam na ne Franc moom loo ci mën a dégg ab taxawaayam fi mu nekk nii ci lamb moom kenn laam-laamewu ko ñépp itam ñu ngi gis ni mu ci nekke ñeneen ñoo xam ne ni moom lamb ji nekk di ay mbër ñoom itam seenum jàkkaarloo maanaam yëglikaay ba ñëw na ca muy diggante Issa Pouye ak nga xam ne moo di Alioune Seye 2 Gaston moo fa jaar face ba nag ca 2STV la war a amee ki nga xam ne nii moom def naa ab face à face am ba gagné yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci moom muy ki nga xam ne moo di soq digganteem ak ka nga xam ne moo doon gàmmu gi yëglikaay bi nag ginnaaw ba soq daanee gàmmu gi moom sunu làmb xëy tey sampab laaj di laajte soq léegi kan lañ koy jox nag ginnaaw bi nga xam ne nii daan na ki nga xam ne nii moom moo doon gàmmu gi yëglikaay bi ne na moo du Anta Diène Kaïré les numéro 2 wala Yékini senior kan la ciy doon maanaam ku ciy nekk adversaire ki nga xam ne ni moom moo di ka nga xam ne moo di soq bi pikin yëglikaay ba moo xëy tey samp boobam laaj di ko laaj ñeen ñoo xam ne tamit yëglikaay ba ca biir sunu làmb ñëw na ci ñoom muy diggante Tidiane Faye ak ka nga xam ne moom moo di Alioune Sèye Junior seen combat ba nga xam ne nii moom maanaam am ndaje la woon moo xam ne daal maanaam yëngu woon na bu baax a baax a baax fañ ko doon defee nag mu doon ca cosaan nekkoon directeur TFM violence fa amoon maanaam yëglikaay bi ñëw na ca mu doon jàkkaarloo booy Niang ak ka nga xam ne moo di tafaatin ka nga xam ne nag moom moo di Abdoulaye am wala boog Pape Thialis Faye moom mu tëgg làmb ja moom la mu xam ne daal nee moom am na ay pénalité yoo xam ne mu ngi koy xaar ci ñàkk teew ga nga xam ne ñàkk na koo teew wala teew ga mu def ba mu nekk ko góor mu dem ñibbi ndax nag violence fa amoon ka nga xam ne moo di managerum tafaatin di mbay cuun moom la mu xëy xamle ne na manque de sécurité maanaam moo indi li fi am yépp am fi burxaan waa di tam loolu la wax ne na face moom fees ko gisee sécurité moo fa war a jiitu moo fa war a mujj moo tax caam CNC ma nga xam ne moo doon seen superviseur moom nee na Pape Thiolès Faye moom wax jooju ngay wax delloo ko fa nga ko jële woon ndax yow lu jin njaaka yaay njaak yaa sa face à face kon yaa war a wut sa sécurité bu doy sëkk waaye bu ci tudd kenn loolu caam superviseur u CNC moo xëy di ko wax Pape Thiolès bu nu fa jógee continuer ca record ba tey ci mbir moomu diggante booy ñan ak ka nga xam ne moo doon tafaatin mel ni ki nag image la boo xam ne yëglikaay bi di record moom xëy na ñu xam ne daal nekk na image boo xam ne daal image bu doy doy waar la ci làmb ay oto yu ñu toj yoo xam ne daal bari na yàq goo xam ne nii daal foo ko takk weesu na ko ay gaz lacrymogène yoo xam ne daal maanaam def nañ ko fa mel ni ki nag mbir yooya maanaam moo indi la nga xam ne moo indi coow la surtout gaz lacrymogène ba record a xëy tey wax na ko Pape Thialis Faye moo tax ba tey ci record mu nga xëy di xaal di xamle daal nee na loo ci mën a dégg daal maanaam mbëri ñi leen yore ñoo war a mën a am mis ci ñoom wala boog kaddu gu dëgër goo xam bu ñu leen nee lii ñu def la ñu leen wax mbay cun di manageru tafaatin moom itam xëy na di wax la ne na daal loo ci mën a dégg Thialis loo mën a wax wax ji mooy sécurité moo fi waroon a am te amu fi li am lépp looloo ko indi Bourkhane Wade itam wax na ca ba tey ca record càmm bu CNG ba tey mu nga xëy rek daal ci paw ci kaw Pape Teles Faye lam ko xamal daal nee na ko yow organisateur bi yaa war a wut sa sécurité maanaam sécurité say mbir ba nga xam ne kenn du ko toj yëglekaay bi moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu moom record tamit dellusiwaat na ci combat bi nga xam ne moo doxoon ci diggante Sokh ak Gamou Gueye ba tey bu nu continuer dem Equivox lan fay fekk mooy diggante ka nga xam ne nii moom moo di ka nga xam ne wala boog Bada Jon moo xëy ba tey rek di wax ci mbiri Tapha Tine ak Boy Niang Bada Jon moom ka mu dal ci kawam du kenn ko dul Pape Thialis Faye nee na ko bu fekkee xam lu ñu organisé na ko laaj ndax ñun yàgg nu itam ab contrat nekkul loo xam ne da tënk rek ba waa ji mel ni mooy sa buur di sa bummi lu ko neex mu def loola lu ko neex mu wax loola Jon ne na ko loolu moom Thialis jàppal ne amul tey suba waxi noppi te du ko def ak yow ndax itam jàppal ne ñi nga séqal ay nit lañu ne na ñoom xalaatuñu tey ci suba wala ginnaaw suba di indi ay nit ñuy rayante foofu ay bakkan di ca dee jonn na leen dal ca tafaatin dootu leen dal mukk ndax nag ku ndóbin ray sa maam boo séeni lu ñuul da waqet ngay def ba da jonna wax lool ca Equivox TV parce que jàpp na ne foofa la fa na am ba ay nit ñu gor leen ca ay jaasi gaañ ca ay nit ba mu jur loo xam ne nii maanaam mara day taaleel jonn na loolu dootul am combat bi daal jël nañ ko fas ko yéenee bëre te itam lépp fu ñu woo ñu wuyu fa bu amee sécurité waaye nee na fu amul sécurité moom tafaatin du fa dem wala bu fa demee itam du fa toog loolu mooy xibara jonn kon nee na Pape Thialis Faye jiin njàkka yaay njàkk yow mi organiser sa lamb di def sa face à yaa war a jël say précaution wut sa sécurité keneen koo xam ne nii nga xam ne nii moo doon ca Pikine Fallou Ndiaye daal boole woon na Ada Fass ak Tafa Mbër mel ni ki tamit foofa yëngu woon na lool ñaari mbër ya nag ku ne xam ne ne le 7 août la ñu war a bëri mel ni ki nag waxante am na fa muy ñaari xale yoo xam ne soxlante woon nañu bu lool lool moo tax nag Fallou Ndiaye daal maanaam kon bu bëggee dégg dëgg moom la 7 août la fa yéene tëgg booba combat muy ñaari espoir yoo xam ne ci lamb ñépp a leen di xaar waaye loo ci mën a dégg xulle daal face à face ak ndajeeg lu mu ci mën a doon maanaam ndaje mu mën a doon la waaye mën a wax lu dul sécurité ca war a am pour man day wax la ko neex makkatal mu karama ga yonte ba sallallahu alayhi wasallam tëdd sax bu nu koy ziyaare yi donte ay dafa am waaye sécurité totale la ñuy jël donte ñëpp lu baax lañ fay ndax nag foo gis kuy gàmmu da gis ca côté ba kuy raas déem kon déem yooyu des leen a war di suuraale waaye doo bàyyi bañ dal ca kaw ngay doog a wax lii daal mooy wax ji pour man. Ah, kon dégg ngeen ko loolu mooy ñëw tey ci yëglekaay yi ma di leen nuyuwaat di leen ziar leen wax ne nag tey moom sama accompagnant yi ah bu dee Ami Diouf la fan yi moom mu ngi gay njaay ndax dem seeti maire bi Abdou Saliou Sey tey moom itam am na ci tey mu ne ba gisu ngeen leen kon loolu moo tax tey Babacar rek ngeen gis ah defe naa nag foofu ma tëje wax ji fa koy ubbi ah, mooy ci côté ñiy gàmmook ñiy raas dem ça veut que loolu soo ko déggee mooy euh, li ñuy wax maanaam dañ koy wax pour que nit ñëpp ku ci nekk gis ci seen bopp parce que làmb fa nekk lu nga xam ne nii maanaam dafa am enjeu xëccoo la yaa ngi dégg lépp loo xam ne am na xëccoo du sax làmb muy football di basket di volleyball lu mu ci mën a doon mu am xëccoo rek soo ko organisé yow mi koy organisé la nga war a njëkk a lijjanti ginnaaw boo amee lieu ba nga koy defee am adversaire ya ngay boole ba pare la ca topp pour man mooy sécurité bu la bu wóor ak foo leen man di woo parce que tamit seetlu naa lu nga xam ne nii maanaam nañ ci veillé bàyyi ci xel parce que am na loo xam ne deru làmb lay tilimal te loolu defe naa ne baaxul ci promoteur bi tëgg làmb baaxul ci mbër bi kay bëre et puis baaxul ci ñi nga xam ne ñoom ñooy les acteurs de la lutte mooy insécurité bi ñuy gis te des fois man dëkk bi dama ci seet loo xam dafa doy waar fi mu nekk nii xat gi lay na rek nga gis ñu gaay ñu toj ay oto sànni ay xeer agressé ay nit léegi xaw ma lan moo xew xaw ma lu xew kon yooyu nañ ko xoolaat kon defe naa ne yéen les promoteurs yi nga xam ne yéen a tëgg seen ay làmb jël seen ay millions dugal ko ci yéen am seen fulla ju toll ni tey la nga faye mbër ay dizaine de millions defe naa ne ku génne ay dizaine de millions fay ko ay mbër war nga mën a tamit génne benn xaalis ut ci sécurité bu dee da def sa face à face bu dee conférence de presse ngay def ak loo mën di def nga ut sa sécurité bu doy teg fa pour que ki ñëw bëgg ko yàq mu jaral la lu ne ba du ko yàq ñun man boog loolu laa am lu may wax si lu parce que tamit yenn yi moom vraiment moo warul ñu ko bàyyi muy jàll aussi tam état bi tamit nañu gën a vee parce que waxuma sax làmb ja mais Sénégal léegi li ma seetlu un deux trois rek agression toj ay palaas yi jàmbur toj ay oto yi jàmbur ñooñ nag war na si ne jéem a sippi li jënti leen parce que itam nag réew mi réewum jàmm la te réewum teraanga la te itam réewum orma la réewum sutura la parce que ay kilifa diite dafee ne kon nañu gën a yokkaat suñu yar di ko commencé ci suma bopp man Babacar gën a defaraat suñuy kàddu am ay teggin loolu yàqul dara mais am na yenn yoo xam ne daal vraiment gënul jekkul te jaaduwul di wax ne nag loolu suma contribution la ci li nga xam ne ni maa ngi koy gis souvent muy am euh, rawatina lu jëm si côté làmb ji mais tamit en général ci Sénégal yépp yépp yépp waaw xule léegi nag dañuy dem ci yëglikaay suñu làmb tey xëtam mu njëkk dafa ñëw ci le 31 juillet ku ne xam na ne ah grand combat bis bu mag a ci am Gaston Mbengue indil ñu bombar ji ak Balla Gaye bi nee na un vrai règlement de compte waaw règlement de compte waaw am na parce que li tax mooy ah euh, Bombardier dafa nangoon roi des arènes ci Balla gay muy deuxième fois bi ngay dégg roi des arènes ci Balla la ko jële woon combat ba bi mu bëri jeexee bari woon nay wax waa kër Balla ñu ne Balla wéru kon naa naa jàppal bàyyil wax ci Bombardier itam waa këram di dégg loolu ba benn suur defe naa dékk naa ko micro ca biir këram euh, laaj ko ci loolu mu ne moom bi ko nit ñuy wax intéressé woon ko moom Bombardier mais bi mu déggee Balla waxal boppam ne wéru kon nee na kon ci la doog gëm ne kon kii day dafa jàpp ne day salteel waaye nag nee na comme mu ne nag maa ngi ñaan yàlla bu ñu ca yeggee mu wér pour ñu jàkkaarloo yàlla na ngeen wér yéen ñëpp yàlla na ñëpp wér ñu fekkee ko ñu xool waaye xam naa règlement de compte gi moom du si mën a ñàkk parce que li tax mooy Bombardier dafa nekk mbër boo xam ne mbër bu dogu la amu fit lool gëm li muy def dafa naa itam yombul ci moom mbër bu nga xam ne yaa nga jóge Petite Côte bi nga ñëwee dakaar duggoo ci benn écrit nga indi sa écrit Mbour ànd ak sa ay nit say xarit say am di jàmm ak say rak former sa écrit ba xëy day nekk roi des arènes ñaari yoon bokk ci les parmi les VIP nekk mbër boo xam ne tey kenn tudd làmb te tuddoo Bombardier kon defe naa loolu rek moo lay wan ne Bombardier vraiment ku am amiritu làmb la mu nekk mbër mu am fit mu xam li muy def man ko lool macha allah seq koo xam ne tamit. fit wow na ci Bombardier daa ne ci moom man googu ne ci Bombardier daa ne ci moom moom tamit mu nekk koo xam ne 2005 la ñëw ci làmb mais defe naa boo xoolee parcours Balla Gaye numéro 2 comme li may wax si moom boo ko tuddee sax am na ñoo xam ne dañ naan da ngaa far ak moom te a a football loolu la ko yàlla may ci bëri muy mu mën a bëre Bombardier daanoon ko mu bëgg a fayu nee nag Bombardier mu ngi koy wax ci ay xeex ak yu mel ni kii noonu waaw ne na waaw nee na baax na nee na corriger daal xam naa la ca fas yéene def maanaam corriger mooy jubbanti waaw nee na tamit côté mystique bi muy wax nee na moom da ci làmb la bokk fi nekk nii bataille de communication day maanaam dañuy waxante di jéem a ku ne di dox ci sa maayanu morom loolu mooy làmb ji waaye xam naa daal lu la waaye mën a wax la 31 juillet moom Gaston Mbengue indi na bés bu neex a neex yàlla nañ ci yegg ak jàmm ñu bëree ko que le ba tey tafaatin booy ñang foofu tamit li ñu yëglikaay bi ñëwaat na ci ca la fa jotoon a am ci ay yàqu-yàqu ay kii yooyu moom comme li ñu waxoon sànq lañ ci ñaawlu rek waaye fañ cay waxaate mooy li booy wax moom ma fa desoon parce que jàpp na ne diggante ak tafaatin xeex mënu ci ñàkk ñu xeex waaw loolu moom xalaat naa ne euh, mënta ñàkk parce que li tax ma xam ne mënta ñàkk booy ñang tëliwul xeex parce que dañ ko teel di jàngal xeex ci xale tafaatin tamit ku ne xam na ne ci wàllum xeex moom ah defe naa ne Bombardier bi ma tudd léegi ak Elton doy na exemple la ci ñu xam ne Tapha maanaam bagarreur yi nekk ci làmb ji tey boo dee lim cinq personnes yi da koy dugal ci biir ci wàllum xeex ku ko man la booy ña jàng ko ca xale kon defe naa yéen ñaar bu ngeen dajee moom amateurs yi xam nañ ne balaa ngeen a bëree xalaat naa faaw ngeen xeex waaw waaye nag xeex booba itam mën naa jeexal làmb waaw ndax ci biir xeex mën nañ la dóor ci manta xulle nga daanu waaw man ngay xeex itam ñu wàaj daw tibb la daan la lu nekk mën a nekk waaye bis bu nar a neex la le 8 août yàlla nañ ko fekkete tal ko ba tey beneen combat boo xam ne ki ko tëgg moom mooy gar Gaston Mbengue muy face à face Forza ak amoon boobu combat amoon na fi ak Luc Nicolaï mu nekk combat boo xam ne tey pap ki nga xam ne moom mooy Gaston moo ko indiwaat muy deuxième euh, combat bi maanaam seen ñaareelu jàkkaarloo parce que Pakala moo ko daanoon ah yàlla doxaat tey ba ñu dajal leen seen face à face amoon na tension maanaam yëngu woon na trop a ah, loolu mooy làmb parce tamit ku ne xam na ne Forza am na lu mu bëgg ci làmb te jàpp na ne fi mu nekk ci làmb du place am pakala itam loolu la jàpp ne ah, wax mooy mooy Malick Thiandoum bu TFM la mu xëy xamal Tyson 2 daal mooy ah am na challenge bu dangereux waaw bi mu jël muy franc Thiandoum daa jàpp ne lu dangereux la effectivement c'est dangereux parce tamit Franc daanoogul ci li avec frappe te li simple ku ne gis na ne ah tey fii nekk nii su ma juumul bu ci nekkul numéro un tamit jiitu ko ci dana jafe kon defe naa xale bu mel noonu am ambition ah vraiment ku ko jëli jël nga mbër waaye day bëri mbër moo xam ne tamit mu naq mbër mu mën a bëree la Tyson 2 encore une fois nañ ci bàyyi xel waaye mbër namit mbër la tamit bu mën a xeex kon combat la boo xam ne nii nañ ko xaar combat bu dangereux la bu jara bàyyi xel jàkkaarloo Issa Pouye ak euh, Alioune Seye 2 face à face 2STV loolu tamit day am yaakaar naa ne tey yëglikaay bi ñëw na ci soq yëglikaay ba xëy di laaj adversaire am fu mu jëm mu doonta Diène Kairé lees numéro 2 Yékini Junior waa làmb moom saa boo daanee xule yokk jéegu daan na moom gàmmu géey la daan xale boo xam ne ah li mu waxoon bëri ki démb rek ñu bëri boo leen laajoon ci bu njëkk boo defoon maanaam benn saaru sondage li li wax ne gàmmu géey man day ëpp waaye gis nga lam jo fa mu mujje soq ñëw teg bëri bi si yoon daan kon tey ah adversaire yi ñu lim muy Modou Anta mu Jin Kayre wala muy Les 2 wala Yékini Junior ah waaw war na mën a ne san départ ci ñooñu nangu ko waaye la mu waxoon rek wax naa ko fi ci combat Boy Niang ak Balla Gaye lii taxawal combat yi lii tax soq jot ci adversaire yi moom xam naa ne soq boo ko seetee ngir adversaire yi du la delloo avance bi waaye nag maanaam euh, cëggal guy la mu nga ca adversaire yële ndax bu dee Yékini la tey buy bëreeg soq moo koy may sens bu dee Modou Anta la effectivement noonu la demee parce que li tax mooy tamit loolu la waaye même bu ko jën kayre daanee bërki démb itam am na lu mu def ci lam te palmarès bu ngi dégg jën euh, itam daan na Modou Anta lees numéro 2 noonu kon ñooñu ñëpp ku ci ne yëglekaay ba samp laa jëm laaj ndax ay adversaire lañ pour soog waa làmb tëdde noonu war nañ ko mën war nañ mën a gestu bëreeg moom parce que xale la boo xam ne itam ah yor na daal jikkooy fi mu nekk nii te gis naa ne bërki démb lu leen di ci làmb ji moom soq te loolu am na solo loolu ci mbër record ñëwaat na ci li amoon bërki démb ci euh, cosaan ci jaaxaarlu ba amoon ci tafaatin booy ñaax la fa jotoon am ne na gaz lacrymogène ba moo créé problème ba même gaz waaw bu gaz lacrymogène moom loolu la waaye man a wax bu ñu ko bàyyoon fa mu nekk du kere problème nit a ko pompe pour problème mën a am kon nit ñi la mbir yi ñun la mais du gaz lacrymogène bi gaz lacrymogène boo ko tegee fii ci sa néeg bii laaloo ko du gaañ kenn du xeeñ kenn dundi benn problème waaye nag boo ko laalee ah <laughs> te ku xam na la ca ne mu ndey jafe-jafe lii mooy problème bi ah kon encore une fois rek nañu xoolaat suñu taxawaay xoolaat suñu doxalin loo dafa am solo Pape Thiolès sooy wax na jàpp na ne ah ñi yore mbëri na ñoo am même si ñoom maanaam nañ leen jéem a euh, am ci ñoom kilifteef wax na mbay cuun maanaam sa tafaati ne na ko manque de sécurité la burxaan même chose loolu la wax caam seen seen ak moom la mu jàpp mooy Pape Thialis Faye lu jiin njaag ne na ko yaayi njaag parce que sécurité bi nga waroon a ut moom nga deful te kuy organiser face à face da ut sécurité loolu mooy waxam encore une fois loolu tamit xel da koy nangu muy Pape Thialis Faye ak comme ci mën a doon Fallou Ndiaye ak Assane Ndiaye ak Vox Arena ak ñépp a ci yem ku ci nekk promoteur jël sa million dugal ko ci làmb di def sa face à face wutal sa sécurité loolu mooy li am moo wóor soo bañee leneen fekk la ci yaa ngi dégg loolu moom dañ koy wax di ko waxaat ba tey ci loolu ba dajoon cee Vox Arena wala cee Equivox wax na fa moom tamit ku ne xam ne ne ci ñu war Tapha la bokk wax na fa moom itam promoteur bi la accusé jàpp na ne bu ne accusé nag maanaam ça veut dire que daa jàpp ne moom moo jël ay responsabilités ci côté sécurité bale am am ñëw na ci Joal jàkk la faamoon nag yépp ñu bara joon ñëw na ci ba tey bu ñu demee ca Ligue TV lañ fay fekk mooy jàkkaarloo bi amul dim diggante Ada Fass ak Tapha Mbeur ca Pikine Fallou Ndiaye organisé ko muy combat boo xam ne tamit le 7 août la war a am vraiment mu nekk combat boo xam ne bés bu jara bàyyi xel la ndax combat espoir la boo xam ne ah ay ñoom moor Kankang ñëpp nga ca biir euh, bés bu doy war la Fallou njaay tëgg pour la 7 août kon defe naa Fallou itam vraiment promoteur la boo xam ne mu ngi liggéey lu am am solo si làmb ah vraiment itam nee na euh, waxal na ma boppam dem ne ma vraiment Babacar maa ngi remercier ku mel ni Aziz Ndiaye ku mel ni Bara Dione ku mel ni Pape Abdou Fall yaa ngi dégg. ñoom Yandi Diop ñoom Mor bu Parcelles ñoom Amdi Moustapha waa Njaay production bi yépp yaa ngi dégg ak man mi Babacar ba ca Lamine nag ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñépp fàllu na ku ci ne rek mu ngi lay remercier loolu nag mooy làmb moom day tëgg samedi 7 août bët set le 8 août tafaati nag booy ñang bëri kon moo lay war ne kon kenn booba itam yàlla nañ ci yegg ak jàmm xulle dana tàng dana neex di wax nag di remercier ñépp den wax na tey fii la ñuy yemale waxtaan wi tey nag gis ngeen li ma sol xulle numéro 10 laa sol waaw ah, waaw maillot Sénégal parce que Sénégal Cap Vert dañuy football tey match amical ñu ñaan yàlla dañ gàñoon bërki dem ñu gàñe ne tey rek Lions yi nag du ma jóg ci di leen remercier ndax samay soppee fa ne samay waaye fa ne en commençant par Saliou Ciss la latéral gauche da Nancy AS Nancy Lorraine maa ngi koy remercier Cheikhou Kouyaté Ismaïla Sarr ñoom ñëpp gis naa leen waaw parce que nag dompat ci sot la bokk te gis naa seen taxawaay ci Babacar Sadio Mané tamit bu Liverpool mention spéciale Idi moom tamit kazalika naka noonu yéen ñi fa nekk ñëpp ah ñoom Mendy yéen ñëpp su ma limee dinaa juum yéen équipe nationale ak seen coach Aliou Cissé eh, man daal li ma leen di ñaanal yàlla na ngeen indi CAN bi fii Sénégal bu ngeen ci jógee indi coupe du monde loolu laa leen di ñaanal di ñaanal ñëpp jàmm di remercier ñëpp mais Serigne Ndiour Italie maa ngi koy béggewaat encore une fois di ko ñaanal jàmm ki nga xam ne nii moom mooy Omar Tawa borom marché asalem mention spéciale di kontaan tamit di ñaanal koo xam ne vraiment dama am fierté ci moom xulle muy Saliou xulle bu Zik FM ndax dañ ko nommé animateur da la ne bari ki fi kenn bële paase lañ ko doon jox li nga xam ne moo doon prime loolu nag li ko waral rek muy liggéey te Saliou Khoulé ku ne xam ne day liggéey kon Saliou yaakaar naa ne loolu téeñ bi la mais yéen bi ñëwagul di nga gën a yokku te di nga gën a avancé bu soobee yàlla parce que sa xol sell na te yéen nga ñëpp jàmm mais liiru jaan maa ngi koy remercier di remercier wulli ñooñu tam samay waaye lañ maa ngi leen di béggee bu baax a baax a baax a a baax di ñaan jàmm Sénégal Serigne Cissé mu Serigne tamit maa ngi koy béggee bu baax Khoulé di leen jox dig daje suba incha allahu rabbi waaye bu leen ko fàttee bu leen ko jaawale zadoor a ngi nii diw bu baax bi vermicelle bu baax moutarde bu baax bi thé bu baax bi macaroni bu baax bi couscous bu baax bi lépp zadoor la avec zadoor et Babacar tout est possible